Euh, mbokki géejawaay info internet ñu ngi leen di nuy tey nag ñu ngi dalal ndaanaan ñu naan ko Père Yéri Ngoné nekk euh, foofu ca Oxygène Père Yéri Ngoné ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax nakay tey ci loon ne di nuyu bu baax a baax info géejawaay nga wax ginnaaw loolu di sant yàlla di jullit ci yonent bu baax a baax di wax ne ñu ngi lay sargal bu baax di jaajëfalaat sa teewaay fii ci Médina Gounass rawatina na nga seet si sunu champion sunu Péré Ngoné ñu jóge woon ci combat bu bëri woon coow doxoon ci diggante Balla Gaye ak Modou Lo maa ngi la ci doon cherché waaye tey la yàlla dogal ma gis euh, ñu gisante Balla Gaye ak Modou Lo boobu nan nga ko jàngatee. non xam nga loolu combat boobu yàlla dogaloon na sax naka jekk du ndax ku ne xam ne nag ñun amuñu ko dul Balla Gaye ndax géejawaay lañ dëkk fier ci géejawaay waaye notre géejawaay pire et dire ay deretu géejawaay moo nekk suñu yaram Balla Gaye diggante ak Modou Lo ma ciy laaj sax mën naa ni kooku jarul sax ma ci sori ndax. urewa dem na ngi waxe mag dem na dental ba barki dembo njaay rek carte gi leer na nañu wan ne ko no sa morom duma na la dor na la daan la ñu gis ni wa parcelle li ñi wax bari na nee nañ combat bi dañu dañu dañu dañu sot modulo xam nga ñoom dañu bax rek di wax lolu ndax fuñ buñ la jekko ba duma la duma la dan la yekati la ba ci kaw ah def la lo xamne ne say kanami nawle wax deug yalla bu la nexe mën nga yàq lamb ji waye nak fuñ ku na xamne nak nag du du lamb domi du dubales jooju tabaarkalla macha allah du yàq làmb. lan mooy lan moo nekk ci kanam moom Balla Gaye 2. Balla Gaye li nekk ci kanamam bëri na digganteem ak Modou Lo digganteem ak euh, Eumeu Sène mi ngi fi am na tamit sañ-sañu toog ci làmb ji liggéeyaat lu bari ndax fu ñu toll nii nag Balla dese na lu bari de. dese lu bari lu bari lu bari sax lu bari ci kanam mi ngi ci kanam am na adversaire yu bari tey lay adversaire sam sax di soog a te door fi ñu toll nii mën naa la wax loolu. ñu gis ni mu demoon ñaari at gàddaay mu ñëw contour waaye ñu gis que le 13 janvier ca euh, Léopold Sédar Senghor ku ñëw gis Balla Gaye daal danga naan est-ce que Balla Gaye ñëw na 100 pour cent wala. non keroog boo ñëwee sax di nga xam ne Balla mi dafa demoon am lu mu mottali jiwoon waaye Balla mu sa ñàkk dara waaw waaye nag tolof tolof du ñàkk ci doomu aadama léeg nga nekk ci benn bis boo xam ne du ñàkk nag benn affaire bu la gàllankoor tuuti waaye loolu dañ koy faxas dem utiwaat njariñ ñëw taxaat te keroog ba mu dellusee Sénégal gépp xam ne ni nag Balla ñëwaat na période ngoone ñu gis ni géejawaay yëpp combat bi da ngeen a mobiliser ñu gis staff bu am solo ci walu Balla gay waye ñu gis encadrement ñu gis tamit aussi ni yeen en tant que communicateur traditionnel yi combat bi dafa am fu ngeen ko tegoon lan moko waral wala bis bi mo ni tollu bis bi mo ni tollu rek ndax ku na xamne ne ne nag ak géejawaay way duma ci wax waye modulo ak Balla rek jéggi na dayo kon lolu du diggante parcel ak way diggante modulo lon ak waye ñun ay communicateur lañu réew mi nu ñor waaye nag rawatina Balla nag doomi Double Less jooju ñu bokk ak moom dëkk fii ci géejawaay boo demee parcelle de amaana nag communicateur yaa ngi fa waaye ñun géejawaay communicateur yi géejawaay Balla lañu wax. tey lan ngay wax sa rakk sa xarit muy Boy Niang 2 doon bëre combat bu bëri woon coow doxoon ceem ak digganteem ak ndongolo. kooku boo ma ci laajee dinaa ci sawarax ndax nag tubaarkalla macha allah ba ma laajee ci Maguette Seck ñu naan ko Boy Niang tubaarkalla macha allah sunu champion sunu ndaanaan. bu lëg lekkee olom na ko gërëme ci waaye mën naa ne Medina Gounass ñëpp bu nu bëggee Balla c'est à cause de moom ndax xam nga tax ba muy ànd ak moom booba Balla xewul booba roi des arènes xewul waaye Maguette Seck mi tubaarkàlla macha allah nag mooy sunu champion may wax doomu Medina Gounass doomu Géejawaay damaa bëgg bu Maguette mi jógatee ñëpp jug ar ko dar ko mm-hmm. te xam ne nag tubaarkàlla macha allah moom la ñu am mooy sunu champion Euh, sa tàggatoo gu mujj ci Géejawaay info ak lan nga ñuy wax. Géejawaay info xanaa di kontaan naat ci ñoom bu baax a baax waaye ba tey du ma doyal ci Maguette Seck dama koy wax ni ko Gunaas sas na noonu la Géejawaay sas na noonu la yàlla na jël roi des arènes bi ci barke yonent bi nag wal sama mbër la waaye nag Maguette. mention spéciale ndax dafay sama rakk nag ñu bokk dëkk fii ci Géejawaay euh, Géejawaay info ci kaw ci kanam ci kaw ci kanam ci kaw ci kanam jërë ngeen jëf. Euh, merci Père